bëggoon nga leeralal ñu interview bi nga xam ne Adji Sarr daf ko def avec France 24 comme ni nga ko defee woon ci bële yow da nga ci dugal sa loxo. d'abord naa la yëgal ni. Mhm. dégg benn waa Pastef ñu bàyyi di wax naan ñun ñoo bañ dem seeti aji Sarr moo tax. waaw amuñu ko. waaw léegi eh, média européen ñu am ko. waaw mais je et je le et je te le et je le réitère. parce que yow. bi nga xaar xaaral xaaral. bi ñu defee interview bële. waaw man j'ai j'ai eu une frustration bi nga ma woowee plus tard. ma ne la mettre boo am nga raison ci man xaaral ma ne la mettre mere naa la trop. waaw yow ngay def interview ak Adji Sarr yëgaloo ma ko. mere war nga ma ci man interview boobu boo ma ko yëgaloon. dina boo ma boo ko organiser woon ni nga ko waroon a organiser. bàyyi ay journalistes ñu def seen liggéey. Euh, dama tere Khalifa Diakhaté non non non terewoo leen question yi sax terewoo leen leen ñu def seen liggéey boo leen bàyyi def seen liggéey dama leen dama def obstruction non bàyyi journaliste yi ak Adji parce que yow da nga doon intervenir déedéet dafa am benn ah? non non dafa kon am na lu bari loo xam ne du am Adji Sarr aussi avocat bi dafa war assister rek waaw mais dans un mais préparation bi c'était avant non non benn yoon laa ko benn yoon laa ñëw di ma laaj ndax mën naa wax lii wala mën naa ma ne ko yow laay def sa waxee ko ni nga ko xalaatee man sama nekku ci loolu laa xel a pare laaj ci Abdou Zane conseiller te man. ma wax ñëpp ne maa ko doon dicté muy yàgg naa leen wax yi wax naa la ko yow ñi ma xam ñëpp xalaat ne. média européen yi mu doon ñi ma xam ñëpp xalaat ne xam nañu Adji Sarr ba ca ba dossier ba di doog nee naa leen dama bëgg a jël aji saar benn concession laay def muy ne pour des questions puisque nee nañ saa sécurité est menacée man mun naa. ci wax d'accord xaaral ñi ma xam ñëpp ne. comme képp ku ma non munu munu ma ko wax. non wax naa la yow. wax naa ko bi nga bi nga génne si. si maître oh, ci temps bi daan la wax naan jox ma aji saar benn concession laay def mooy ne dinaa d'accord dem fekki ko mais dañ may bàyyi man ak moom ma def ak moom interview su ma ñëwee. ça va être enregistré dans les conditions du direct et, et cette proposition là. je la réitère man conseil wu ko. je la réitère mais. on laisse des journalistes on facilite l'accès de journalistes français à mm-hmm. Adji après on veut insulter la presse disant que les Sénégalais les Sénégalais ñemew ñu ko interview on est à la 1 ah man dama découragé déglu ma may mun a boo ma woowoon problème yow ne ma man a ànd Adji Sarr parce que ça fait un an maintenant mais ba fexe ba fexe ngeen gisee. mais c'est pas trop tard. mais est-ce que est jéem nga par exemple ñoom xam nga ñoom européens ay professionnels lañ. ah ñun du ay professionnel. ok merci ñoo xam an nga toog ak une non professionnelle. non yow yow ci nan nga mën a nangoo loolu nga mais tey ci affaire Adji Sarr moom wane wane professionnalisme foofu. si si maître xam nga lu tax lu toll ni émery fi am mars lu toll ni dossier Ousmane Sonko un an am kenn ci xalaatul dem wut interview Adji mais dañ ñun man man li may. xam li may li may li may li may li may am ci information yëpp man ma xam mënu aujourd'hui mënuma localiser Adji Sarr ma sax xam ci lan la nekk à un moment donné vous lâchez le morceau. vous encadrez la fille vous ne voulez pas que les gens acceptent à elle. il y a des gens qui sont autour d'elle. je suis désolé il y a même des activistes des influenceuses yoo xam ne dañuy accéder ci Adji Sarr. à un moment donné on lâche le morceau Adji n'est pas nekk nekk nekk fii. Adji Sarr ah. Adji Sarr d'abord est menacée de mort comme son avocat yaa gis menace de mort yi. ba pare taal sama kër je voulais. maître man je suis dañu rey ma pour rey ma déglu ma rek. boo ma yóbboo fi Adji Sarr nekk. je garde l'information mais yow boo ma waxoon da nga bëgg Adji Sarr. Ah. dinaa fexe ba nga gis ko. waaw léegi damaa bëgg a interviewer Adji Sarr. dañ ko am incha allah rabbi. voilà boo ñëwoon déglu ma. tubaab bi am professionnel bi am seen représentant à Dakar. bul wax loolu. waaw déglu ma vous avez voulu faire une communication de grande échelle. mais déglu ma déglu ma. vous avez voulu internationaliser le dossier bul wax loolu non non non ñoom c'est pas entre eux. Ah. entre les juges européens yi fi nekk ñoom ils se sont entendus. non conjonction boobu moom elle est suspecte. non non non ñoom ñoom ils sont à Dakar ils se voient tous les jours. elle est suspecte ñoom ils mangent ensemble fii nekk. oui mais moi je les connais. waaw déglu ma may ma déglu ma. waaw ah. ils sont ensemble. RFI ak Fra Bégal. d'accord ñoo bokk c'est la même maison. non c'est un consortium mais c'est la même maison waaw déglu ma c'est la même maison non. ah Fra Bégal ak RFI benn kër gi la. benn kër gi la. léegi le monde ak Jeune Afrique ñoom ñëpp même gu même ñoo bokk édigisé donc loolu ñoom bi ñu préparé ñoom ñëpp ku nekk am xel moomu xëy na xel day fattu Sénégal benn journaliste Sénégal yi jógul ni ah affaire bi at jot na dañ dem la Adji Sarr xam nga tax ragal Sonko mere leen ñu bëri. bu ñu ooyee Adji mais Adji Sarr waxee jour boobu. sama téléphone yi y avait plus de 1000 appels pendant 2 trois jours mais di ñu jëfur. <laughs> dañu jëfuri waa kër Sonko yi ay dof lañ ces chiens là di yuuxu di tëb di mbëkk bi ñëwee tas sama kër tayatuñ ko woon. ndax ay xaj ñooy la toog kër jàmbur may may may foofu juste juste foofu keroog bi ñu indi aji saar buy wax ma ne ma ko waxal moo un wala deux laaj na ma rek nu may waxee lan laa war a wax affaire bi dañ ko organiser ma ne ko waxal affaire bi moom c'était un plan de com waaw déglu ma waaw ah. mu wax ma ne bu njëkk bi laay wax euh, bi mu waxee noonu am na télévision bu mag a mag Sénégal man ma oo trois télé laa oo ITV Leral TV ak TFM ba tey ni TFM taw ko. mais ça c'est c'est le, c'est leur libre arbitre. loolu laa la wax parce que TFM était exposé pendant ces événements là. on a brûlé RFM. d'accord naa peut-être que TFM bu ko tegoon. TFM va mettre en danger la vie de plus de sept cent sept cent employés. et pour un employeur ce choix là. il est difficile kon ITV ñoom ñu exposé seen seen. ak waa Leral TV. tout dépend am naa fi fu ñu mën a. non non non mais s'il vous plaît non non non mais s'il vous plaît les les s'il vous plaît. daamu daamu leeral non non mais xoolal maître yii yii il faut gouvernement bi président Macky Sall yow yaa waxoon wax nga ko keroog d'accord naa yow. caméra baa ne sera plus comme avant. li fi nekkoon mënatul nekk ku ñëw pour rey nit dina ko diggaale yow ku ñëw pour taal au champ wala magasin jàmbur. ay milliards yi jàmbur ñu rëq sa ndigg saa dëkk ay dëkk bi ay ay rebelle yu ñëw fii ci dëkk bi ak ay jihadistes taxaw bëgg a taal dëkk bi dugg Sénégal ba bañ Lions yi bañ bañ coupe bi ñu gañe ah ñu ñaan bëgg a taal Sénégal naan ay monnaie locale ndax ñoo ñii gis nga ñii. waaw mais maître su ma nee jérémy Sénégal président sa gouvernement. monsieur le ministre de l'intérieur Antoine Diome mon jeune frère monsieur le ministre de la justice mon confrère Malick Sall la police. le le directeur yàgg moom moo jeune frère la gendarmerie Moussa Fall ñu koy yàq lu ne demul dara un un cadre émérite de la gendarmerie le haut commandant de la gendarmerie très sérieux Moussa Fall ñu naan complot la bokk mais gis nga gis nga loolu mooy diffamation kii war a yóbbu ci yoon mooy Sonko mi nga xam ne respecté wul juge même juge bi dee respecté wul Bassirou Gueye le procureur de la République. Lex. waaw mooy xëy mooy procureur bi bi bi mu koy saaga. Samba Sall du Seck Malick Sall Antoine Diom Macky Sall ku ne mu saaga ni complot la loolu dafa yomb. man dafa ma dara le dossier est vide. yow ma nga nekk juge et partie à la fois. yow daal soo yow yaa àtte sa bopp. yaa ngi toog moom day wax nga ne le dossier est vide pour dof yi topp daal c'est vide yow yaa toog ni complot la. waaw waaw mais yow doo bàyyi juge bi ni complot la seet la gisul dara. waa mais wala mu ne c'est vide. on a yow yaay kan mën nga nekk euh, juge et partie. mais kay jublu a. waaw xaaral xaaral xaaral waaw kañu revenir. mais bu e ne kon ay ITV. xaaral xaaral xaaral ay dañuy rek dañu ma ne dañuy xaru man tey. TFM dafa daw res rek jour boobu. ma ne ma ne. c'est la ma ne ça c'est leur liberté te TFM songu nañ ko fi. bañ ba ñuy songu média yi y avait pas de force de sécurité waaw mais waaw mais maître ba ñuy songu média ba ñuy songu dañu génn sox ay fetal ñu daw waaw band yi daw mais maître ñu taal RFM auto Macoumba Beye je crois auto auto Ndiaga Ndiaye et vous pensez que après il faut mettre en en en danger la la la bi mais boobu c'était un désordre désordre y avait plus y avait plus de sécurité ku fi defatul noonu ñu réglé ko waaw léegi maître des bandits yu nekk fii extérieur ci dëkk bi. on en revient oh, on en revient ci affaire intérieur xam nga man xam nga lan laa xalaat même si les journalistes sénégalais avaient demandé intéressé wu ñu leen woon dossier bi mu ngi nekk di yëngatu. Euh, on va aller sûrement. man euh, xaaral xaaral non non man waxuma boobu man waxuma boobu. deuxième interview mars bi laa moi moi il y a deux choses waaw mais xaaral je peux comprendre man je, je comprends cette façon de penser des des des tubaab ils aiment bien parler du viol euh, voilà de, de femmes martyres et cetera je je comprends mm-hmm. je comprends qu'un journaliste tubaab puisse venir s'intéresser à Adji Sarr sans pour autant mu nekk euh, une affaire préparée mais man tamit de l'autre côté dama jàpp ne quand vous avez proposé ça les a intéressés et yéen derrière. on n'a rien proposé y' a eu y' a eu non mais da y' a eu plan de com parce que ku ñu bett interview nga def shooting def séance photo et puis affaire bi c'était tellement bien coordonné. dañu ñu ngi ñëw. mais mais mais mais coordination bi dañoo jàpp bis. Eh, eh, jàpp euh, trop parfait joxe rendez-vous. dañu saa préparé wu. waaw defaru ba jeex. ñëw toog wax ju leer sa waay rakkaaju. di talalale moom it nee na moo tax bi yëngatu te Adji Sarr fi ñu koy wax ci dossier ci dossier bi xanaa kay Adji Sarr ko yëngal. est-ce que nekku leen di préparer l'opinion internationale. ci lan internationaliser le dossier en choisissant ces médias là. non de toute façon Adji Sarr est prête pour internationaliser le dossier moo tax ñoom bi ñu ñëwee wax ak moom ci kontaan xam nga lu tax moom ne na sax dégg mu ne moom. et où va prendre les moyens. pour faire ses déplacements moom moo nii. dafa ragal ne justice sénégalaise dañoo ragal xanaa Ousmane Sonko ah, wax na ko ne état bi xanaa dafa ragal Ousmane Sonko nañ ko àtte moom dafa yàkkamti taxaw ni pour dire que moom dafa bëgg ko nee na xanaa tribunal justice dañoo ragal ba Ousmane Sonko hmm. wax na ko ci interview bi. il faut qu'on termine. waaw d'accord fu muy jëlee les moyens. Ah, après ba ñu ci moom ci boppam li tax mu bëgg ñu ko ndax dafa sonn ci toog gisul dara yëngatu pour moom ci ci moom ñu ko bëgg a rey mu ngi làqu ki ko bëgg a reylu ak ay nit ñu ko bëgg rey ñu ngi def lu leen neex dëkk bi moom mu ngi lambar lambari mu ngi meeting mu ngi réunion mu ngi wax mu ngi menacé te moom Adji Sarr ñëwul génn ñaari yoon la wax mu ne ñu ne Adji Sarr chaque jour mu wax. ça veut dire qu'il y a une mais ku hmm. mais am na équipe. mais ki ñëw ak 18 avocats xoolal ki am 18 avocats ñëw ak moom toog wax lu ma ne wujju ba gendarmerie lu nekk muy wax xam naa da ngay conseillé xanaa ak yeneen nit tout dëgg mais Adji Sarr da koy bàyyi boobu kenn noonu rek. ok donc am na ñu nekk ci ginnaawam. ci la noonu ñu yer communication. ñu koy jàppale non amul communication li mu am li mu demee rek. Hmm. problème mooy am na nag sécurité am na ñu ko jàppale pour duñ ko rendi dañu bëgg a rey Moustapha Diakhaté rey El Hadj eh, eh. rey ku ne.